mbokk yi euh, ñi ngi toog ak kii di sëñ Basiiru Mbakke moom sëñ Abo moom sëñ Fallu di tew ci bisu sëñ Ablaye Diop xaas di wëllëreem di xaritam sëñ Basiiru Mbakke bisu sa bisu wëllëre sa bisu xarit bi sëñ Ablaye Diop xaas euh, lan nga ci wax. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokk taal bi yëpp di nuyu sang si maanaam yëpp. waaw si Ablaye nag day suñu xarit lool waaw moo tax daal bu ñu jàppee bis bi nag bokk na si ñi ko njëkk a wax sax waaw moo tax tey moo war suñu teewaay ñaan yàlla suñu borom sëy bi yàlla suñu borom si barke waaw euh, sëñ Ibrahima da suñu xarit lool di ko ñaanal yàgg bu doon wér dëgg yàlla waaw kon euh, yooyu di ñaanal Tektal TV hmm. waaw bu jëm si kanam isaan isaan yow kontaan na baax a baax lépp la Tektal TV lay def isaan wala kontaan na baax a baax billahi bu baax yàlla mooy sëñ Bassirou Mbacké di suñu wóolare lu bu baax ci bés bi sama sëñ da nga ci sànni kàddu ñaar wala sëñ Modou Mbacke waaw sëñ Abdourahmane Darou Salam sëñ Modou Mbacke lan ngay sànni ci bis bi ci waaw bis bi de xanaa di ñaan rek suñu borom daf si barke sëñ Ablaye day nit ku baax di ko am taal bi di ko bëgg Serigne Touba waaw te ñoo bokk Serigne ma rek moom waaw ñoo ngi koy ñaanal nag suñu borom bis bi yàlla daf si barke te mosal leen seytaane mosal leen si lépp lu rëy si barke borom Touba. mooy mooy wax si moom mooy wax si man. ah man nag moom ak sëñ Ablaye daanaka benn lañ donc muy ku baax vraiment ku am disponibilité donc sëñ Ablaye defe naa ne wax si moom tey fi ba gannaaw si jeexal parce que yàlla def na daf ma xarito donc ñuy diisoo lu bëri lii bi muy bi am échangé nañ si donc muy euh, lu nga xam ne lu sincère la si moom sama diggante ak moom donc relation entre sëriñ ak taalibe relation yoo xam ne man ak moom dañ ko am te yàlla tax donc loolu lañ seeg man ak moom te Cheikh mu si témoigné lu bëri dañuy partagé lu bëri donc daal mu gudd mu bëri dañuy ñaan seen bi sëy bi mu bokk sëy yi gën a gën gën a barkeel loolu daal laa moon ay kàddu yu ma vraiment di ko félicité aussi di félicité sumulu bàcce di pour